Mustafa sallallahu alayhi wa sallam wa ala alihi wa sahabatihi ajmain wa ala tabiin wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yawmi din radiyallahu an mawlana al-qutb al-maktum al-maktum al-maktum mawlana Cheikh Ahmad Tijani radiyallahu ta'ala anhu radiyallahu an cheikhina mawlana sahib al-fayda tijaniya حبيبه خديم رسول الله وخليفته حقا الخليفة المطلق مولانا شيخ الإسلام الحاج إبراهيم ياسر رضي الله عنه ورضي الله عن والدنا وشيخنا مولانا الشيخ محمد المؤمن ابن مولانا الشيخ راميس رضي الله عنه وعن الصالحين إلى يوم الدين إننا في هذا اليوم المبارك نحمد الله تبارك وتعالى حق حمده على لسان لحظة الإطلاق ومن أنفسنا ونهنئكم على هذه المناسبة المباركة ذكرى الشيخ محمد المؤمن الذي كان من رجال هذه الفوضى ومن عبيد محبة الشيخ رضي الله عنهم الذين خدموا الشيخ خدمة موفقة عند الله تبارك وتعالى ومرضية عند الشيخ وعند الله تبارك وتعالى وشهده القاسي والداني على هذا فإنني أشكركم جميعا كل من حضر من مشايخنا وأحبابنا وإمامنا وأئمتنا ونستحضر الخليفة شيخ محمد الماحي خادم الأمة وجميع إخوته وإمام الأكبر وننبه بمواقف الإمام الشيخ محمد الماهر السيسي كما أنني أخص بالدعاء والذكر والزيارة نيابة عن الخليفة وعن أن أصال أنفسهم عن الشيخ والدنا وشيخنا الشيخ محمد المكي ابن الشيخ إبراهيم الناس الشيخ محمد القريش الشيخ إبراهيم الناس الشيخ محمد البشير الحاج محمد زينب الذي يعتبر من أبناء الشيخ أيضا كذلك الشيخ محمد العربي الشيخ محمد الشفيع الشيخ إبراهيم ياس الشيخ محمد المهدي الشيخ إبراهيم ياس وبنات الشيخ وجميع المقدمين والأعزاء أشكركم جميعا وأتمنى لكم الخير وأرجو منكم الدعاء وصالح الدعاء وكل عام وأنتم بخير ñu santaat yàlla bu baax ci bés bu tedd bi di gërëm yàlla tabaaraka wa taala di gërëm di julli ci yonentam bu tedd bi sallallahu alayhi wa sallam tëbu di gërëm ci leeru borom xatuma këtuma maanaam Cheikh Tidiane radiyallahu taala anhu waaye ki nga xam ne moom suñu sëriñ moo leen utu ñoom ñoom ñëpp yore may yoo xam ne yàlla moo ko jagleel maanaam Cheikh Ibrahima radiyallahu anhu soppee rasulullah xalifaam dëgg-dëgg waaye di fàttaliku di ziara borom ziara bi nga xam ne moom sikk na mi ngi teew ànd ak ñun ci jotaay bi muy Seydina Cheikh Mouhamadou Mamoun Cheikh Ibrahima ñu ngi ziara xalifa bi eh, donte ci tukki la nekk nga xam ne ñooy xaadimul umma yàlla jox ko kàddu tey bi di ko ñaanal delsi ci jàmm fekk jàmm ziara Cheikh Mahamadul Amin ak mboolem rakkam yi tedd Cheikh Mahamadul Makki ibnu Mawlana Cheikh Ibrahima radiyallahu daf ko booleeg Cheikh Mamoun boole boo xam ne boole bu sax la ñu ko dund ba bañ bokk avion te ñaan ne ko man damay dem mu ne ko déedéet moom toogal man naa dem du ma ci sori ba yàlla dafa axwaal feeñ fa sëñ moom dénk ku li ko dégg yëpp ne ko déedéet toogal ngeen continuer man damay dem ba loolu na ci bi sëñ moom génn àddina mu fekk ko ci tukki lu jàppoon bés mu ne ala kulli xaal bu dee loolu wér na danaa fekkee dëj bi yàlla daf na fekkee ne ko alhamdulilah defal ko lam ko waxoon ne nag ko defal kon sëñ bi ñu lay ziara di jéggalu suñu taqsir ci yow ci njabooti baay gi di la ñaanal di di sàkku ci yow ñaan ci njaboot gi yëpp fekk nga fi say rakk yu tedd ak say mbokk yu tedd yoo xam ne tamit taxaw nañ bi taaral nañ ko taaral nañ ko bu baax dale ko ci Cheikh Mahamadul Qurayshi mu ngi lay ziyaara sëñ bi sa taxawaay ci réew mi ak ci pays bi waaye nag sa diggante ak Cheikh Mahamadou fàttewuñ ko doom bi nga ko tuddee dëggal na loolu waaye seen kóllëre yéen ñaar yàlla la woon liggéey ci àddina tam ci lu jëriñ doomu aadama yi kon ñu ngi rafetlu sa kàddu yi ñu ngi rafetlu kàddu yi nga xam ne moom nga wax ci euh, sama yetu yaayu Cheikh Ibrahima radiyallahu anhu ak kàddu yi nga wax ci yi nga wax seen kàddu yëpp Papa Mouhamed Khalifa Niass ci kàddu yu rafet yi nga xam ne wax nga ko ak nuyu bi mu ma nuyu ma mag sama rak ak njaboot gi yëpp ñu ngi ci gërëm bu baax di gërëm Cheikh Mouhamadou Chafi Cheikh Mouhamadou Mahdi mbooleem doomu baay yi fi teew yëpp ak mbooleem njabooti baay gi muqaddam yëpp ak mbooleem ñi fi tudd ci suñu rakk di ko gërëm ci taxawaayu Cheikh Mouhamadou Laaji ci ni mu taxawee jotaay bi ak ni mu ko nangoo ci mbetteel waaye terewut taxaw na jën na ndigal ci man ñëw fe beesal loolu lañ ko wax wax na fi waxee rafet ñu koy gërëm bu baax xale bu am yaakaar la bu am yar la bu bëgg xam-xam la jazakallahu anna kulla xeyri su ko defee nag Cheikh Mouhamadou ba dinaa ko tuddaat wax naa ko ci arab sama arab yu xeebu waaye moom ak papa Mouhamadou arab yi wax dëgg yàlla ay keneen lañ ci pér bàyyi mu leen yaral boppam yu doom alaaj Mour Seynabu di doom yoo xam ne ci njub lañ nekk ak xam-xam waaye ku leen xool wala ku xamoon Cheikh Mamoun rek boo leen gisee da nga leen fàttaliku kon ñu ngi leen di ziar bu baax di leen ci seen wàcc waay ak mboolem mu leen sëñ Mamoun yi fi teew maa ngi seen maam Béy maa ngi seen yeneen waa kër Cheikh Serigne Mbaye ñu fi teew sëñ Alaaji Ñas ñu ngi ziyaara di ziyaara Cheikh Abdou ak tur yi nga xam ne euh, Cheikh moom Alaaji tudd na leen ñëpp damay bañ jaaraat am ñu nga fàtte ñëpp maa ngi leen di wàccee seen wàccuwaay di leen tatagal waaye di ñëw ci nga xam ne mooy aydan imaamana Cheikh Mouhamadou Mahi Seyd Ali Cissé radiyallahu anhu nga xam ne euh, ci cëru boppam euh, yàlla ko jox cër ci pays bi yàlla ko yàlla yokk sàmm ko tabarakallah waaye ci cëram digganteem ak sëñ maamam moom mooy sëti Baay en tant que jeune en tant que borom xam-xam bu teel a tegu ci yoonu mag ñi kaar fa tabaarakallaa Cheikh Mamoun teel a xàmmee loolu daf ko xarit daf ko soppee bëgg ko ah, fekk ko ci dëgg ñu ànd ci dëgg mu ngi taxaw rafetlu taxawaayam bu baax ci jeunesse bi ak ci xadara bi ak ci kër Cheikh Mamoun ci mboolem mawaqif yépp lépp lu mu ci mën lu muy taxaw rek moom dëgg rek lay naa sara dana ci taxaw ci kaw dëgg bu gisee lu safaan tamit bu mënee wax ak yow dana la waxal digal la di rafetlu tamit ci ñuy jagleel bés bi la bokk waaye def na ci taraanga boo xam ne xëy na bëggul ñu tudd ko waaye képp bu ñu ko jox ci xew ah bu fekkoon nga yore dara xëy na danga teg la nga yore woon jëfandikoo ko te da nga kontaan bu fekkutoon nga yore dara it ah da nga bëgg da kontaan da nga xam ne sa xew bii dafay yéwén ñu koy gërëm bu baax di sakku ñaanam di ko ñaanal yàlla. kazalika pare yi ci def yëpp xëy na mënuma lim tur yëpp ju juum ci tudd nañ leen waaye ñoom ñëpp taxaw nañ ci def nañ ci. maa ngi nuyu son excellence monsieur l'ambassadeur di Cheikh Ali Hassan Dème ba tey di doom di muqaddam di ci bokk ci doomi xadara bi am ci cër jàng am xam-xam boole ko excellence bi mu doon safaara bi mu yore ñaan yàlla gën ko coo dëgëral gën koo jàppale mu gën a mën a liggéeyal réewam ci ahd bi passé ak ahd bii nii ba yàlla sopp yi ngi koy ziyaara di lu kàddu yu mu wax ci son excellence monsieur le ministre Mohamed Ndiaye Rahma li mu wax rek ci moom doy na doomi sëñ Maamun la xaritam la nit ku baax la moom Mouhamed Ndiaye defkati lu baax la ñu bari ñu ko xamul dégg nañ ko euh, moom it yónnee na euh, ndimbalam ah, loo xam ne yooyu yeesut moom it euh, lu ñuy xeeb yeesut bi rek Cheikh da wax na ma ko sànq ne sëñ Aliou dem jox na ko ko oo na ma tamit téléphone di teewlu di wax ne dafa am dëj dama ne ba ci Kaolack am dëj mu dëppaat waaye bëggoon naa teew waaye sëñ Aliou bu teewee rek moom teew na kon si daal ñu ngi lay gërëm bu baax kadaalika ba tey kàddu yi nga xam ne dégg naa ko fi yëpp wax dëgg yàlla kàddu yu rafet la suñ kilifa yi fi wax wax xam-xam wax fàttaliku seen mbokk ci yàlla seen àndandoor ci yàlla seede seede yu rafet yoo xam ne nii foo leen bët mën nañoo toog wax ko mooy ne ñoom ñoom ak moom ñoo bokk ci ko ñoom ak moom ñoo bokk ci waaru ñoom ak ñoom yow ñoo bokkoon ñoom ñu li alquran wax rijaalun sadaqu ma ahadullaahi alayhi maa ba doon tabdilan rek lay tegtal ndax boo wax ma sa euh, jikko ma wax la sa àndandoor boo wax ma sa àndandoor ma la sa jikko kon jërë ngeen jëf ci seede yi lii rek liñ ci jublu mooy fàttaliku lu baax ak it jox jeunesse bi exemple bu baax ndax roy teefu mag yi mooy yonent bi sallallahu alayhi wa sallam te comme ni ma Cheikh Mouhamadou Quraysh waxee imaamuna Cheikh Mouhamadou Mahi leeral ko ba tey bàyyi dafa yor loo xam ne doy na ñu koy propagandal te ni ñaan rek yàlla teg ñu ci ahdam ak njubam ba ba ñuy dajeeg moom ànd gudd fan ak wér ndax la mu waxoon waa Qahira yi doomam yi mu yebaloon te doomi ruuxam yi doomi maanaa ñëpp la waxat dégg nga na ngeen sax ci ahdu bi nga xam ne moom la moom sama bàyyi bàyyee woon muy maam Alaaji Abdoulaye Niass te benn ahdu rek la ahdullaahi wa rasuuli sallallaahu alayhi wa sallam daal ci kàttal maa ngi ci kontaan bu baax di nuyuwaat ñëpp di nuyuwaat kër Cheikh Abdallah Cheikh Bachir Niass mag mu ngi fi ak ñi fi teew ñëpp ngeen baal ma ku ma gis ak ku ci pays bi du soppee ñëpp di xarit di xarit ci ñëpp képp ku nekk ci njub rek wala nga nekk ci mbaax it yàlla sa xarit la muy cheikhana ustaadana cheikh abdul baqi ibnu molana cheikh hasan dem tukulóoru baay xaadimu baay radiallahu anhu dëgg-dëgg waxtaan yi suñ kilifa yi wax wax nañ ci nee li nga wax rek doy na keneen dootu ci teg dara waxin la waaye ñun ñi la déglu tam ak ñu la déglu ak ñu la santoon waxtaan yi njaboot yëpp ñoo dëppoo nee la waxtaan nga waxtaan dëgg-dëgg kontaan nañ ci wax ji du kontaan ci suñu baay ndax suñ maamun ñëpp la fi nekk lool waaw da daan jox sax ba yéex a jox doomam wala jabaram kon moom bunóotu baay gi la xool mooy bunóo maanawiye bi donte bu daayeer bi am na solo kon bëgg nañ ci daal mbégte doom parce que loolu kenn mënu ko dindi deret la waaye nag bëgg nañ ci tam mbégte soppe ak taalibe yoo xam ne wax nañ ci seen sëriñ bëgg nañ tamit boo bëgg mbégte militant bu mën a doon ci parti wala ci mouvement ñu wax ci sa leader lu baax dañ ci kontaan kon yal na yàlla fay la te yokk la su ko defee euh, délégation yi ñu pare ne ñi ñëwoon nañ seen bopp ñi yeble nañ am na ci koo xam ne moom ci man lañ ñëw tey muy fadratu cheikh wulul xayri di nit ku baax di ko bëgg cheikh Ibrahim di koo xam ne nii tamit ku yàlla may cër la ci yàlla ay nit it fonk ko ànd ak moom mu koo xam ne yebal na délégation ñoom Cheikh ñoom Abdoulaye Rabbani ñoom Ismaïla ñoom Rajo Amadou Ndiaye ànd ak ñeneen ñëw nañ fa tey ak Pape Pape journaliste euh, waxtaan nee na bëggoon naa ñëw waaye magam moo feebar ñoo hospitalisé ko ak it euh, doomi bàyyi Cheikh Mouhamadou Lamine bu war a ñëw Mauritania moo tax ñëwut ñëw nañ ci kër ga ziyaara joxe seen enveloppe wax naa ko Cheikh Hamada dañ kon li mu teewut teew fale moo tax ma insister tudd ko fii ndax euh, xàq la te yóbbante la ñu ngi nuyu ñëpp di siyaara ñëpp di siyaara suñu yaay yi dale ko suñu yaay soxna Fatima San Dem soxna tante Mati Diouf ak tante Day Fatou ñoom ñëpp dañoo bokk ci xew bi tante Day Kéwé ñëpp ñu ngi fa woon di taxaw ci jotaay bi ak suñu tante Fat Thiam ñoom ñëpp ñëw nañ ak suñu tante yëpp ñu ngi leen teew suñu yaay maama Muna Mahir moom it eh, teew na te dafay gën si jógee Sénégal mu am ah, kii eh, Égypte Xaahira ñëw fi ñu ko xam ne yaay ju baax la Euh, xaajalewul njabootu sëñ Maamoun te risaala boobu bàyyi doon def Cheikh Abdou Bakr di ko tudd euh, ca fin ba moom Cheikh Ibrahima mi ngi ko ciy ndokkeel sëñ Maamoun ci ersi bi boobu mi ngi ko del soxna bees suñu nopp di ñaan tamit seen i njaboot yàlla barkeel leen kon ñu ngi wax ne teew na te fu fu sori la jógee nekk fi gan jamono yi nii ci gàttal daal loolu mooy kàddu gu njëkk gi nga xam ne moom laay nuyoo ñëpp di nuyu mboolem taalibe yi teew suñ toppee daayira yi xëy na mën naa juum waaye ñu ngi fi kuñ tudd tam nga xam ne noonu la rek waaw waaye yéen a jàng fi jëli xaar ku ne xam ne seen diggante ak Cheikh Mamoun radiyallahu anhu euh, Kousi ñoom it teew nañ ba ci euh, da nga fayaa ko ba ci yeneen dëkk yoo xam ne ci àll bi jugee nañ fa teew ñoom ñëpp daayira bi ci Medina Baye ñoom kii na jaay macha allah maa ngi nuyu tamit journaliste yi ñoom Média Alfayda coordonnateur Omar Wañ ak ñi ànd ak moom ci liggéey yëpp ak Alfayda euh, Ibrahima Guèye ak ñi koy jàppale ñëpp ak yeneen même média bi fi teew seen taxawaay ci xadara bi ak seen taxawaay ci bés bii nii. su ko defee tam li nga xam ne mooy lu aju ci daayira yi moom lañuy ñuy gërëm di leen sant ci seen taxawaay ak képp koo xam ne ni jàpp nga ci bés bi. suñu rakk yi nga xam ne tam organisation bi ngeen gis nii tey yëpp mu jaar fii mu jaar ba agsi fii ah lañ ca def man su amee lu ma ci def xëy na mooy jox leen ndigal ñaanal leen. ak wala tamit nee la xaadim laa damay bëgg sax mooy wàcc ci teer ñu ne ma déedéet toogal waaye xëy na du ñàkk beneen yoon danaa gën a wàcc ci teere bi ndax suñu maamoon sama sëriñ la bëgguma rek ñu teg ma def ma xalifa ma toog rek di jaaxaan ndax damaa bëgg ndolool ci barke maa ngi nuyu Cheikh Hamada Niass Mahamadou Montasir di ko gërëm di rafetlu taxawaayam ak organisation bi góorgóorlu na ci ah, moom ak ay samay rak Cheikh Sëriñ Aliou Niass ak Cheikh Ahmed Tidiane Niass ak ah, Pa Hassan Niass macha allah ak ñu leen jàppale ci jigéen ñi dalee ko ci Seyda Fatou Mamoun ma gëm ma jëm dafa tukki nekk Arabie Saoudite aji woon waaye mboolem ñi topp ci ñoom ñëpp ku nekk ci turam gannaaw bu ma tëddee Fatou Mamoun maa ngi lay teewlu ak kër gi yëpp famille bi yëpp ñëpp taxaw nañ jazakumullah wa anna kulla xeyrin participé nañ tam ñoom njaboot gi si Seyda Mamoun taxaw na ci bés bi def na ci xaalis def na ci ñaari nag def ci un million cinq cent lu baax lu mu def la dañ koy gërëm di ko ci ñaanal yàlla nee na ma Cheikh Hamar def ci loo xam ne bëggul ñu wax ko si seetam Cheikh Tidiane mooy taxaw lim mën def na ko ci waaye kàttanam fu ne lay dugg fu ne lay dem kaar di ñu utu di ut ay magam di joxe carte yi di wax ak ñun ñi ngi leen di gërëm ci loolu ndax yombut tamit ñu am ay rak ñu la nangul loolu kon su kilifa yi toogee war naa leen ko mën a ñaanal seen kanam seen leen ñaan suñu rakk Seyda Yousra moom it eh, def na ci bés bi taxawaay bu baax tant bi lu jóge na 2 millions lu jël en charge Cheikh Ahmad wax na ma ko gisal naa ko sama bopp ñu ko ci gërëm bu baax carte yi itam feneen lañ ko daan defaree waaye ren moo ko jël en charge ci commencement bi euh, def ci sept cent et quelques mille ak yeneen yoo xam ne waxuñ ko wala yëguma ko ñu ngi koy gërëm di gërëm jigéen ñi tamit at bu jot dañuy cotiser ñoom ñëpp jàpp ma li ñu joxe waaye ñoom ñëpp daal ci gàtt jàppal nañ ci loolu laa amoon kàddu yi nga xam ne moom laay wax la jëm ci njaboot yi su loolu weesoo nag mbokk gi yàlla na yàlla fayante gi yéen yàlla na yàlla yokk leen yàlla na yàgg leen gis suñ kilifa yàlla na yàgg gis suñ kanam yàlla bàyyi leen fii ndax man mat nañoo gën a ñaanal ndax ñàkk nañ ay kilifa yoo xam ne ñu mel ni Cheikh Mamoun ñu mel ni Imam Hassan ñu mel ni ñeneen damay bañ a wax mel na damaa fàtte ñeneen ñi ñoo xam ne ñii deme nañ ndaw ñii dem nañ bay commencé dugg mag dem ñu ngi ñaan ñu fi des yàlla bàyyi leen fi may leen wér ndax tiital lañ ci ñun sag lañ ci ñun dañuy yokk fit te njub ci lañ nekk zahiran wa batina waaw sëñ Mamoun nag ku ko tudd dana nga tugg politique jotaay bi nag du jotaayu politique ba tax na du ma dugg ci yenn détails yi waaye daal nit loon koo xam ne yàlla la nekkaloon politique bi mu doon def da ko doon def ngir jëriñ jaamu yàlla yi da ko doon def ngir yokk leen ngir taxaw faj seen aajo yi waaye def na ko bu ci ut bu ci bu ci ut dara jox naa la ci ndigal yaa xew bii di wax ak yéen nag nekk nañ ca Dakar ñàmbur mu ne ma ndigal li ma bàyyi joxoon ci politique def naa ko ci yow jox naa la ko li ma jógee Arabie Saoudite ah ñu bëri ci waa parti bi da wax ne dañ ma dugal boobu sëñ maamu na ngi jëm mag dégg nga ñu wax ko mënuma xanaa da ngay campagne sama nit ñi mën a ko déedéet gannaaw gi nag wax dëgg yàlla ñu def bureau politique dugal ma ci def ma may adjoint boobu ba léegi mosuma cee génn du ma sori nag ci parti bi ndax loolu indiwuñu fii nii dégg naa ay kàddu sànq nag yu ñu wax initiative bi maa ngi koy rafetlu initiative bi développement lu baax la yàlla na leen ci yàlla jàppale dafa leen sutura waaye nag bëgg naa it yéen ñi ñu ci gën a waxtaanee bu baax ndax sànq fii ci jotaay bi laa kàddu gi du ma bëgg tam ñu wax dara loo xam ne dafa mel dafa ma engagé lépp lu ci lu baax rek engagé na ma waaye lépp lu laaj waxtaan maa ngi laaj ñu waxtaanee ko parti bi am na jaar-jaar yu mu am waaye duma ko wax fii gannaaw gi am na lu ci xew ba am na fu mu tegee duma ci wax fii ndax ba mu amee ba léegi kenn déggu na wax ci inna laa ma saabrin laa jëfe waaye bu wax jotee yàlla namm ko liñ ci war a wax leeral ko ngir wax dëkk danañ ko wax ñi xam-xam ñi ñàkk xam xam ku nekk nag am na droit ànd ak ku la neex waaye nañ nañ xam ne parti Sëñ ak politique am du lu ñuy këf rek di ko jox ku la neex wala ay mbooloo ñu jug pour tasaara njabooti Sëñ Maamun di def lu leen neex lii du jotaayam waaye bu wax jotee danañ wax waaye comme wax nañu sànq am nañu waxee ba def benn déclaration looloo tax ma leeral li bañ wax ji mel daf ma engagé mais engagé wul ma maa ngi nuyu ñëpp maa ngi sant ñëpp sama rakk yëpp nag yéene naa leen jàmm ni ñu yéenee defuñ ma dara parti bi ku ko mën a yore ko ci dëgg bu leer ci askan wi ak ci xam-xam ak ci ndigal wax dëgg yàlla bu ñu la waree jàppale dañ la jàppale maa ngi yéene ñëpp jàmm di wax ne nag kàddu gu mujj gi ci taalibe yi laa koy jëmale ñun sama mbokk taalibe Cheikh Mamoun taalibe rek lañ ko xamee te bi yàlla di def Cheikh Mahi ñaan danaa ko feddal incha allah bi yàlla di def muy waxtaan ak taalibe yi daf leen a wan njiitu ci kanam nekk xaadimu Baay nekk xaadimu Seydi Ali Cissé muy Baay Xilaafaal nekk xaadimu njabootu Cheikh Ibrahima gi nga xam ne tamit eh, mbir mi mujj na ci seen loxo dale ko ci Cheikh Hadj Abdallah ba ci ñim bokk ak jamono ba bi muy dem ku ci nekk rek xidmaal na la kon taalibe yi maa ngi woo sama bopp di leen owaat ñu gën a dëkku comme ni ko Cheikh Mahi waxee sànq bàyyi nee na waaye naa lu naa ànd naa illaa bil mahabati wa sidqa rek yal na yàlla yokk mahabba ba ñu roy Cheikh Mamoun roy ñi nga xam ne ñoom la bàyyi wax ci ak ñim ak ñim waxu te ci raxala ko raakiri da nga muy wax ne di tudd ñu mag ñi àndoon ak moom tudd saxaabaam yooyu laa bëgg maa ngi koy leeral fii fasuma een a sama rakk sura ci dara maa ngi lay ñaanal lay encouragé xale bu am yar nga jàng nga macha allahu taala loolu laa mën a wax ci sama kanam kilifa yi ñu ne ci xam ne dañoo def lañu def ci réunion ba te yëgaluñu ma ko en tant que membre en tant que ku nekkoon candidat te mu ngi ci kayit yi ci kayitu parti bi ñu xëy rek def lu leen def loolu moom li leerul ci man waaye bu ñu waxtaanee ba déggoo rek pare naa pour jàppale la ci kaw dëkk. asalaamaaleykum wa rahmatullahi wa barakatu. bismillahi rahmaani